waa tey de journée leeral lan mooy sarax ak sarax nim amee doole ci doomu aadama bi ak nit ki war a xam lan mooy saraxam ndax jamono ji sangu yi bari na sangoo nan kaamil bi ba mu jeex taxul say mbir dox ngay gën a tëju façon jaara bu ne takk nga ko taxut say mbir dox il faut nga xam biddiw bi yow sa biddiw lan moo moom moo tëj lan moom moo la tëj ba xam yow sa buruju kañ ban heure lay dox ak yow ban suur ngay moom sa bopp ndax nit koo gis muy dox am na couleur boo xam ne boo ko solee surle boobu du lijjanti dara mu soppi day yeewu rek mer ndax dafa am jaamu yàlla yoo xam ne ne chaque jour dañuy gént lu mu fàtte ko seen gént yëpp day jaxasoo kooku yow sa bidiw normal da sa bidiw bu normal pour say mbir dox ndax boo xoolee dañ koy misaale am na ñoo xam dañuy xëy xëy rek saraxe dara dañuy xool semaine boobu seeni mbir day dox dañuy jékki-jékki rek affaire yi jékki-jékki rek taxawaat kaj dara du dox foo laal du dox gis nga biddiw boo xasee ba sa étoile bi tëju wallahi li koy dindi dëgg dëgg dëgg du sangu du suur sarax moom moo koy dindi sarax mooy dernier sens nit ki mënoon na lijjanti lu mu mën a doon di ko xëccoo nit nit koo ñëw génne benn kees miskit aaja boobu fay moo tax sarax il faut nga xam ki lay digteel sarax moom mooy kan toujours ma koy wax sëriñ si yëpp xam nañ ma si wàllu sarax képp ku ma ne génnee saraxu nangam heure bi nga koy génnee ak nangam ak nangam ko wallaahi la nga doon xëcc da koy am man moom kooku moom dem na si ba xam ne ne wàllu kayit jërul ma si ñaan nag yi dama naan la ñaata am nga ne ma nangam ak nangam ma ne la suur nangam si suur boobu bu mu ratee heure boobu génnee sarax bi. boo génnee sarax bi da ngay jékki-jékki rek ñu woole si wàllu këyit moo tax ñu bari léegi ma koy yombal comme si TikTok bi moo tax yu bari ma koy yombalaat si YouTube bi pour ñëpp mën a jariñu wala listixaar surtout jamono ji nga xam ne fan yi mujj si koor gi ñun dañuy def benn xalwa waaw xalwa bi ñu def nag ke képp ku bëgg tamit ñu defal la ko waaye du nit ku ne lañ koy defal ndax xalwa moom ah, bal bu tàkk la boo génnee rek aajo ba dafa war a faj waaye dugal nit ki xalwa lekk xaalisam aajo ba fay wut ba pare indi amoon ji sëriñ si dañuy wax wàllu xalwat xalwatu moom sëriñ si yëgunu ko ndax mënunu ko ndax nit ki il faut nga xam sarax toujours may wax lool nit ki nekkal lu la neex xëccoo lu mën a dool xëccoo ko fees dana ki gàllaay yow nga xam sarax bi ngay génnee wallaay boo génnee sarax booba bal baay tàkk moo tax nit ki da dégg yenn saay sax gis nga jigéen bu njëkkee tëdd ak góor am na deret buy tuuru nga deret boobu rawxaani nit ki bu juddoo semaine bi ñu koy ngéntee deret day tuuru moo am na jigéen ñoo xam ne ne seen tëju gépp si ñàkk am doom sarax mën na ko def dangay génnee sarax rek commencé waat gisaat say règle normal di mën a am doom si góor ñi si jigéen ñi moo tax dafa am blocage yoo xam ne ne sarax moom moo koy bloqué kon nag seen bàyyi noonu daal seen seex Cheikh Ibra rek nga xam ne da leen di leeralal lépp waaw lépp rek man moom yeneenti bi mooy sama lépp waaw moo tax mbir daal na leer surtout si fukki fan yu mujj yi daal wàllu xalwatu daal moom incha allah dana ko si def bu baax waaw ñu si képp ku si kii tamit boo nu woowee si numéro téléphone yooyu di daw incha allah rabbi dana la defal xalwat bi wala defal listixaar bi ak lépp incha allah jërë ngeen jëf